حديث المساء حديث المساء حديث المساء xadisul masa bismillah mbokk jullit mbokki diwaanu ngin ginaaw ak li ko wër yéen ñi bàyyi xel waa ngin ginaaw TV Saloum Info itam del si waat ci programme bu am solo ci weeru koor gi fas yéene ànd ak yéen trente jours maanaam weeru koor gi yëpp di ngeen am seen émission xadisul massa muy émission buy wax ci diine julli koor ak ak mboolem seeni farata ak sunna ak yi nga xamante ne jullit bi war na ko ci xam émission bu mag bi ne nag ñu ngi ànd ak oustaz Modou Cissé bu leen ko kenn yoo xamante ne dañuy waxtaane diine 18h30 19h. auzu billahi mina sheytaani a bismillahi rahmaani rahim. Euh, yéen mbokki ga ngi neew am ngeen fi émission bu bees tàq bu ñuy wax xadisul masaax euh, dana xam le diine nag mboolem diine islaam li ko tax a jóg ak li nga xam ne maanaam moom lay jëriñ ak yonent bi sallallahu alayhi maanaam tawféex jëm tawféexalee jàmm ñi jaarale ko ci yàlla subhanahu wa taala euh, pour jàmm ñëpp texe moom bu sañoon jàmm ñëpp texe incha allah yooyu yëpp hadisul masa dina ko indi ngeen ànd ceeg seen mbokk Modou rek incha allahu rabbul alamin xaar leen ko ngoon gu jot ci waxtu weeru koor wi incha allahu rabbul alamin lépp loo xam ne euh, waxtaanu diine la dañ koy consacré jox ko waa Jenge Neew yi bu leen ci dara um bu leen ci dara rek capté leen ko jàpp ko te euh, xam ne seen émission la ñëw na muy bu bees tàq ñu koy tuddee hadisul masa wasalaamu aleykum wa rahmatullah doo hadisul masa doo hadisul masa doo hadisul loo xadisul masa bismillah mbokk julit mbokki diwaanu ngin ginaaw ak li ko wër yéen ñi bàyyi xel waa ngin ginaaw TV Saloum Info itam del si waat ci programme bu am solo ci weeru koor gi fas yéene ànd ak yéen 30 jours maanaam weeru koor gi yëpp di ngeen am seen émission xadisul masa muy émission buy wax ci diine julli koor ak ak mboolem seen i farata ak sunna ak yi nga xamante ne jullit bi war na ko ci xam émission bu mag bi ne nag ñu ngi ciy ànd ak oustaz Modou Cissé bu leen ko kenn nettali maanaam 30 minutes yoo xamante ne dañuy waxtaane diine 18h30, 19h. 19h.